pour ñëw nag dama ne yàlla mooy xam nga yàlla rek commande yi am na ku ma doon wax naan yàlla du nit ma ne ko effectivement yàlla du nit maanaam li président Macky Sall def jël Macky tànn ko jël Amadou tànn ko pour mu remplacer ko je pense que loolu teraanga Sénégal njëriñu Sénégal rek lay doon dama koy wax ndax dama gis Amadou Ba ni mu àndee ak président Macky nekk ndongo daaram ci PSE bi nga xam ne moom la Macky Sall am comme lu muy présenter bilan moom mu téye ko début à la fin dem dem France ba am fa milliards yoo xam ne même dafa raw njort biñ ci amoon loolu ko ànd ak moom nag ci ngor Amadou Ba mosoo koo dégg fen ci loo xam ne lu ñaaw la mosoo koo dégg fenn loo xam ne ay polémique la mosoo ko gis fenn loo xam ne amul njëriñ ci réew bi kooku nag boo ko amee dañuy njort ne bu remplacer Macky Sall dina fexe ba la Macky Sall defoon mu yëkkati ko waaye du ko waaj incha allah loolu nag laa jàppande ne la pour ma woo samay bokk ndax ñun fii Nord Foire ay mbokk rek la ñuy doxee taxawuñu parti politique duñ mbokk la ñuy doxee mbokk nag da ngay jàpp ne chance bi ñu ci am mooy Ba këram fii la ne Azur bii la dëkk moom moo ñu woo ne moom fii laa dëkk bu ma sañoon balaa maa ne kenn gañe naa fenn ma gañe noor Foire ndax sama kër fii la ne waaw bu ko waxee nag soxnaam ñëw fii talal loxoom jigéen ñi ma ye yematul foofu mu ne ndaw ñi ma bëggoon naa ci recevoir benn wala ñaar nit yóbbante leen ci seen i moroom loolu nag bu ko defee ñun dañu am yaakaar moo tax ci lañ jóg ne na kon jot na ba woo bokk yëpp wax leen diggante boobu am ak yaakaar biñ ci am ngeen def ci ñaan mag ñi et wax ci ci kër yi ndax yéen yéen ay pilier kër yi dafa bu ngeen leen waxee di ñu bëgg fii ndax aussi nag dañ toll foo xam ne euh, démarrage dafay amaat démarrage nag ci politique da am loo wane ne lii maa ko fa indi. dafaa ne ñun bu ñu gañee si suñu centre bi gañee commune Yoff Amadou Ba ak relation bu ñu am amamoon directement gëm naa ne mun naa jural njëriñ askanu Yoff askanu Nord fois loolu laa doon damay.